trois espoirs. am nga jàmm. alhamdulilah. ana waa Mbao wala waa Medina. am na loo ma waxoon keroog de. loolu la waxoon. ma Balla Gaye mënta bëre ak yow 5 minutes. ana lu bari wax. fàttali leen rek. may may fàttali ma bëgg nga fàttali ñu. dama bëgg mënta bëre ak yow 5 minutes ma ne ndax ba yaa nga ca loola. loo xam nga ni. am moo mention athlète mention combattant nga xam nga ni man damay waaj maa ngi waaj te yoo xam nga ni doo ngaa kuy waaj ak ku waajul xam nga ko pare naa de. pare nga barki xalifa Maalik pare naa. yaa yaa yaa gën a pare baal. man laa la pare naa barki xalifa Maalik pare naa. Ah. billaay wallaay. giri gaay woyu ma. yàlla nañu yàlla yàlla nañu ci bés bi. dañu tal ko te fekkee ko jàmm di am. arène nationale ci occasion bi. di nuyu suñu frère yi doon bëri stade léegi léegi léegi ñu ngi leen di ñu ngi félicité ñu ngi félicité di encouragé Sokh sa làmb la joo xam ne wax dëgg yàlla ñu fa demoon ñëpp am nañ mbégte waaw ñoom nag. ay référence lañ nag ci seen ci seen catégorie ah. parce que combat bi def nañ ci def nañ ci marketing def nañ ci li tax nit ñi wuyu si leen tey kon boog c'est des gosses à remercier. làmb loolu soxla. làmb loolu la soxla maanaam tey boo amee bés nga def ci li war sa ñaq ndax promoteur bi nga xam ne tey dafa yëkkati xaalisam jox la mu xam ne yow ni tu di du parce que ñoo jaay combat bi waaw te làmb ji réussir na te wax dëgg yàlla ana amateur dafa demoon. régalé nañu te mooy lamb waaw may encouragé soq wax dëgg yàlla il n'est pas démérité na continue liggéey Franc na di c'est un jeune espoir bokk ci làmb ji waaw man ñaanal yàlla di nekk ci kanamam yàlla na nekk ay jàmm rek Franc noo ko gisee Franc seul le travail làmb moom boo liggéey rek fayeeku liggéey la dafa liggéey Franc daa ni dugg suñu seen biir de waaw nañoo ak jàmm rek làmb chaque chaque période rek war na am ñaar wala ñett yu dugg biir loolu mooy tax tamit euh, affaire bi gën a yaatu xam nga garab ca kaw lay fekkante nañoo jàmm rek ak ay moroom ak ñeneen ak ñeneen ak. parce que mu taxawal combat bi. waaw waaw mën a bëri ak ñëpp parce que mi ngi mi ngi wane ay preuve xam nga yàlla na ko defal jàmm war na bëri keneen ku dul bokk na na ñëw rek. lamb ja waa jàmbar production loo leen di wax structure bu bees la ñëw ñu ko laaj ñu fi nekk rek mënuñu mënuñu bëreloo mbër yëpp allah dañu dañu dafa yaatu dafa yaatu am na booy yu bëri yoo xam ne Gaston Mbengue bi fi nekk sax di góorgóorlu mënul loolu mënul mënul sax bëreloo ceeru mbër yi kaaru mbëri sax mënu leen bëreloo kon bu amee ñeneen nit su gën a baax ci mbëri rek nanee neen ñëw parce que làmb dafa yaatu te mbër amul promoteur yu bari bari na ci ay yoo xam ne dañuy découragé surtout nag catégorie gu ndaw gi ñoom ñoo ci gën a métti kon bok ñu ngi leen ñaanal ñu daw ak ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw tëgg yeneen combat bokk ci affaire yi parce que bu gënee yaatu na gën a baax ci làmb parce que laatu nag làmb ay tànku kanam la jëm am mais amul ay tànku ginnaaw. kontaan ci yow. maa lay ziar lu bëri ñaan ci dëkk bi di di ñaan ci dëkk bi jàmm parce que li ñuy def ñu tey nii bu jàmm amul duñ ko mën. li ñu def ni dafa fekk ñu tal ko te fekkee ko donc mais bu amul jàmm ci dëkk bi lii duñ ko tal ba koy def kon boog ku nekk nañ ñaan ci dëkk bi jàmm opposition bi nañu dal ñu dal ñi nekk ci wujju pëte gi yar doole gi dañ bëri yërmande xam ne dëkk kenn ko kenn ko jaayee doole dëkk kenn du ko yoree doole dañuy souple envers la population envers envers tout parce que tamit dëkk nag xel a koy mottali dal parce que ñu Sénégal jàmm rek ñu jig li ñuy def nii tey nii barke Cheikhou Tidiane buñ ko bu jàmm amul buñ ko fekkee sax ba koy def kon boog yàlla na yàlla def dëkk bi jàmm ak salaam ci barke alxuraan jërëjëf. dafa amoon ay ay dafa amoon ay dafa yu may indi mooy dàq boobu. billaay walaay yàlla nañ ko fekkee te tal ko ci barkaaru Quraan bañ a manqué ñëpp nekk ci jàmm jërëjëf ayca mi ngi noonu waa jàmbaar a ngay lamb cey waa jàmbaar production waaye macha allah waay waaye jàmbaar production neexoon naa la keroog lii feet la tey lamb tey bi lay doon waaye def nañ événement waay mujjee ñëw gën a siiw gën a siiw wala seen bopp ndeysaan tëgg combat jàng waaye lii yara rek moo mën moo anta combat ndaanaan mais la laaj moo anta ñaari xale yi kenn moo leen def si xel waa jàmbaar bu tëgg leen ah moo ma jaaxal loolu moo ma jaaxal macha allah Kalidou. Sokh lañ jàkkaar lool xam sa la nekk Malick ngi wax ak ñoom li làmb nangoo li làmb bañ Sokh kaay nii Franc kaay laaj na ay sisam Franc pare nga Sokh pare nga ar génn seen diggante dimanche 19 juin 2022 Franc Sokh arbitre sifflé na ndeysaan Modou Anta Malick Ngom sifflé na diggante Franc ak Sokh waaye Modou Franc waxoon na ko 30 secondes soo ñëwu dinaa ñëw te dinaa la si daan Sokh ni ka man du ma mbër bu ñu daan si 30 secondes arbitre bi sifflé ñu xool fu wax ne du mu jógee Modou Anta mi ngi noonu Abdou Tall bu xarañ loo maa ngi lay nuyu Sa am na lu ma wax waaye maa ngi nuyu sama papa sama xarit am na lu ngi nuyu sama papa sama xarit si combat bi Cheikh Ahmed Tidiane Cissé ma góoru Adja Peltom kay maa ngi moo ma sañsel tey moo ma ñëwal soqa ngi noonu moom lañ jàkkaar lool lewtoo soq Franc Papa Sow ngi fi Ama Baldé a ngi fi Boy Niang ngi fi. waa Pikine ngi fi waa Parcelles ngi fi soq Franc. soq door na ko soq door Sokh Franc la séeréer. lamb ja day raag nan. Sokh Franc luy xew. Franc door na ko. door na ko Sokh takk na ko Franc rëcc na. Franc rëcc na attention. fàq na ko. Sokh rëpp na Sokh ak Franc. jàppoo nan door na. takk na ko. da koy daan. Franc daan na Sokh. Franc daan na Sokh. Franc daan na Sokh. jëla Sokh. Franc daan na Sokh. Franc daan na Sokh laa ilaha illallah Franc daan na Sokh Sa Touba waxan na ma Sa Touba waxan na ma day gaaw ma Abdoulaye Grand Marabout waxan na ma day gaaw Franc daan na Sokh oh vite fait bien fait Franc daan na Sokh facilement laa ilaha illallah Franc daan na ko 11 combats 11 victoire Sa Touba le Grand Marabout am na lu ma waxoon jëlal soq jëlal soq Franc daan na ko facilement oh Franc mi njaago bi nañ ko bàyyi xel vite fait bien fait Franc daan na soq oh waa Pikine waa Pikine lan la ñuy wax mais nag c'est le roi des sports sànniw ñu xeer fair play nan sànniw ñu xeer damuñu sees defuñu. waa sport.